yéen ñiy safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun dalee nag jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy door ak coowal suuf euh, ba ca euh, Dugar ñaar fukki nit ak benn ya nga xam ni nag ñoom la ñu fa tegoon loxo gannaaw seen jàkkaarloo ak procureur fukki ak juróom-ñeent si ñoom euh, la ñu daal di placé sous mandat de dépôt kon ñaar rek lañu ci jot a bàyyi ñu daal di ñibbi ci seen kër te nee ñu nag ay mineur la ñu kon fukk ak juróom yëpp nag kaso la ñu daal di fanaan toppee nag mooy trouble à l'ordre public xotti woor ma waaye takk der ak yu ni mel bu ñu sukkandikoo nag ci maître Sambou di ki nga xam ni moo leen di layool lu ñeel seen procès di àtte ba jàpp nañu ko talaata bii di ñëw euh, ci kanamu tribunal des flagrants délits ñu woyal dem ca diwaanu ko Palestine foofee mel na ni jàmm dellu siwaat na fa ndax cessez am na ci diggante Hamas ak Isra Israël gannaaw fukki fan yi ñu nekkoon ci jàmmarloo yu metti yooyu la jur na ñaar téeméer ak ñeent fukki euh, bakkan yoo xam ni rot na te ñi si ëpp nag ay doomu palestina lañu kon Israël ak mouvement islamiste bi jëmmal nañu rek benn cessez-le-feu niki démb alxames ñaar fukki fan ci weeru mai euh, boobule dogal nag tey si àjjuma ji bi deux heures du matin jotee rek la daal di door ci saa si nag lañu gis ay junni junni palestiniens daal di génn ci mbedd mi euh, ngir rek féete ko nee nañu nag réewu Égypte moo gàlloo rek fexe ba boobule Euh, kenn bañ ko euh, jalgati bu ñu jógee Israël dañuy euh, ñibbisiwaat ci réew mii dem ca diwaanu ku Casamance ak waa MFDC nga xam ni waxtaan lañu woote ngir rek delloo si jàmm ca Casamance muy juróom benn banqaas yu aju ci mouvement des force démocratiques de Casamance yoo xam ni jàmm lañu woote ngir teg gànnaay yi ci suuf bu ñu sukkandikoo ci Seyni Badji di chargé de com bu groupe Asenga bokk ci MFDC boobule dogal li ko tax a jóg rekk mooy boole seen euh, doole ngir waajal ay négociation yu leen mën a jëmmale euh, ci euh, déggoo ci seen diggante ñoom ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci waa MFDC ak état bu Sénégal ñu woyal ak xibaar bu doy waar bi rek te métti ndax ci guddi àllarba bi ñu génn ci aslem ak Grand fa benn étudiante congolaise la ñu fa daal di faat muy wuyoo nag ci turu Loyalty Molé ay atam toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar ki ñu ne rek moom moo ko faat seewu kabi jaata lay ci bi ñuy waaj a korité nag nee nañu lañu ko daal di gracier muy ressortissant Bissau Guinée ay atam toll si ñaar fukk benn moom nag defeere nañu ko lu toll si ñetti yoon ndax mbirum vol euh, di sàcc waaye itam coup et blessure volontaire ak yor arme blanche étudiante bi ñu ne rek moom la faat nag nee nañu euh, daa wàcc ci benn taxi ngir ñibbi këram ci noonu la ko agressé waaye nag lotali daa bañ na rek du ko jox saak bi mu yoroon looloo ko merloo ba tax mu daal di koy jam ay yoon yoon ci kanam laata nag mu koy jam ci xol ci noonu nag la taximaan bi toppee agresseur bi eh, ci ndimbalu policier ya nga xam ni ñoo nekkee woon eh, ca koñ boobu ba ñu jàpp ko nag jébbal ko waa commissariat bu Grand Yoff eh, moom sewuka bi jaata nag di ki nga xam ni moom la ne moo jëf boobu boobule ñaawteef nee na ñu xam nañu ko bu baax ci commissariat bu Grand Yoff ndax rek moo ngi ci seen archive yi ñu wëyal bu doy Badiane euh, mi ñu fekkoon mu faatu ci anam bu metti te doy waar ci benn fosse septique ñu si tegoon loxo nag euh, nekkoon ki nga xam ni moom la doon euh, bëgganteel di Mamadou Thiam dinañu ko defeere bés ni tey ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai ndax rek ba ko way takk der yi doon déglu daa dëggal ni rek moom daa àgg ci kaw Khady Badiane laata nag mu koy xoj ak fulaar ba mu daal di sedd guy ndax rek dañu ko woon dina ko boole te bu pare nag day xaru ñu jàll rek ci mbasum covid 19 bi ngir defal leen xayma bésu tey bi yemook àjjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai waa kër docteur xam leen nañu nii si junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti test yi nga xam ne moom la ñu jot amal juróom benn fukki yaak ñaar ñoo ci am doomu jàngoro ji mu bokk si nag ñaar fukk ak ñett ñoo xam ni dañoo jaxasoo woon ak way tawat yi ak weer ak juróom-ñeent ñoo xam ni ñoo ngeek jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll wala fa ñu ko jëlee juróom-ñaari cas grave moom la ñu am di ñi nga xam ni ñoo nga Sowétas ndax rek mbas mi dalee na lottal am na kenn ku ñu lim ku ñàkk bakkanam loolee yóbbu li mu ñi faatu ci mbas mi bi mu dooree ak léegi ci réew mi eh, ba ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent doomu aadama ñuy ñaan suñu borom jéggal leen te xare leen aljana fanweer ak juróom ñett si ñi nga xam ne feer bi tëraloon na leen wër nañu jamono ji nag téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett ñoo nekk ci loxo la docteur ñu leen di faj ba léegi ñuy ñaan suñu borom yëkkati leen si jàmm ñu wëyal àdd ci actrice eh, bi di eh, fatel sow moom nag dañu ko agressé moom it ca grand yoff moom fatel nag nag eh, nee na eh, ci eh, moom ci boo xam moom moo dëggal xibaar bi ndax rek nee na ay agresseur dañu koo bett fekk nak moo ngi ci benn taxi si noonu la ñu ko forcé jël iPhone 12 am bague en or ak yenn ci ay bagages yi nga xam ni yoroon na ko waaye nag nee na moo ngi si jàmm donte nag li xew xaw na koo métti alxayri jibaar na si ki nga xam ni moo di Adja Astou di animatrice ca 7TV waaye itam nekkoon actrice ci série bi di Ninki Nanka moom nag bii mooy ñaareel ñaareel bi yoon eh, muy sëy eh, kon nag jamono ji ci turu madame Ndir rek lay wuyoo eh, kon nag rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ci sama kàddu ñoo ngi koy wax rek heureux ménage di ko ñaanal sëy bu barkeel kon mbokkente na te notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf